Thank you. Ablaye Faye di rafet di rafetlu seen teewaay fii ngeen ñëw muy tele télé télé bees Kogna Afia seet sama maa ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu seen teewaay. Malick Ndiaye naka nga waajalee sa combat yaag bu Siteu. waaw maag bu Siteu ànd ak samay mbokk rek waaj ko waaw loolu laa def quoi ànd ak samay mbokk ànd ak samay samay grand Joola mu ngi nii gaan Gibson comprends pas ñoo taay taay si nga ñoo ngi nii topp du wér day tene. wala boog Mali ñu gis ne da nga yab waa Géejawaay waay ndax même stratégie ngay indi contre bu Siteu na gis ne saa yu duggee Géejawaay yàlla may la fa ndam ñoom ñëpp ñu taxoon ne cette fois di si daal lan nga am ñuy wax loolu loo leen wax ñuy wax lan ñuy wax ne yow da nga yab waa Géejawaay yi da nga leen miin yëg seen kaw mais bii nii moom danoo booloon ne du ci dal ñooñu di wax loolu loo leen di tontu ah ñooñu di wax loolu noonu lu ma leen di tontu mooy mooy xam naa seen sarax rek waa Géejawaay xam naa seen sarax ndax ku fa dugg ñeenti ku fa ku fa dugg ñeent ñeent ñeent ñeent fois daan fa te ñu ma fa daan ay champion lañ ay champion laa daan Géejawaay waaw kon léegi ñoom ñoom ñoom ñoom ngemb léegi Géejawaay gi yëpp dañoo manqué ngemb bu Siteu pour mu ñëw daan ma ah si kàttanu yàlla liggéey lañ la war a liggéey joolaa la ma war tek teg na ma ko ànd naak samay mbok ànd naak samay booy tamit di dem diin ay Abdou Gueye ak Gueye sama mafia bi ak si ñoom ñëpp comprendre la joolaa ngi nii wàññi ko bu baax teg dama lu métti contact na noonu maa ngi moom dañuy jàppante contact lu méttee métti foo xamante ne kenn di yëg kenn di ñaar comprendre point yow lu dul ñun ak igir bi ñun ñoo fay nekk di liggéey waa noonu la demee nag waa géej waaye dañuy xaar lan la mën a lan lañ mën a xaar sa diggante ñaar ci combat bi lan lañ ci mën a xaar xeex wala bëre xam nga guy ma lamb lañ wax mhm. ndax parce signature bi je communiquer du communiquer neex signature bi te man ay mag comprends point yow kon affaire de signature affaire de signature la mais affaire affaire neexal la mais signature bi combat yi jaay sama combat man jaay nako ba mu jar kon xam nga des fulla ak dan ma dan ma signature nak signature la li la la comprends point yow waaw te suñu bakkan lañ ci teg waaw ci kàttanu yàlla. ñu gis ne da nga ñëw indi indi indi flexibilité ak boxe bu doy waar te duñ ko doon faral di gis yow loolu fa loolu loolu ku la ko digal. non rek ànd ak joolaa mu may takal gaam man ak moom kenn nekkut comprendre pas yow mu may takal gaam di ma xeexloo xeex yu métti waaw kuur yi yëpp may dóor man ak joolaa moo ma ko jox comprendre pas yow. te man damay mottali rek comprendre point yow man kenn du ma jàngal xeex comprendre point yow kenn du ma jàngal xeex man da mottali Bou Siteu du xeex waaw moom deful ba naan day xeex bu xeex man ma daan jël bu rëy. lan nga xam ci Bou Siteu. ay magam ñoo ko doon wax biir biir géejewaay ma tër leen ñoom ñëpp kon loolu waxu kooku ginaaru kookali la kon man man loolu déranger ma ay magam jaar nañ fa waaw. ah ay magam ay magam ay magam ñoo ko wax ma jaar leen si buum bi kon moom day ñëw rek topp topp topp topp ma la samaay gis nga loolu waxu waxu si ko la waxu jéeg loolu yëngalu ma bis bu ne am naa ko yàgg naa dégg lu ne loolu dérangé wu ma xoolal loolu dérangé wu ma noonu la demee day soob bu xeexee ma daan ko jël bu rëy bu xeexee ma duma ko daan ko jël bu rëy ah non est que moom est moom ngay laaj ba xam te ne xeex ñeme na ko man bañu ma ci bët bu pat bëñ bu dañ mu yeewu dañ déggoo lu la bët bu pat déggoo lu la de naa wante na jëpp sàng bëri dóor lañ wax bañu ma na jëpp dañ naar de. nee na moo la ëpp bëre moo la ëpp jàppale. gaay déggu ma déggu ma. mu ne Bou Siteu nee ëpp jàppale. moo ëpp ndimbal. loo koy wax. moo ma ëpp jàppale moom. ci koom-koom. ci koom-koom. jàppale rek non ci koom-koom. ci jàppale. mais lan mooy jàppale. ba ma bëgg nga wax ma lu leer ma tontu la maanaam daal moom moo ëpp jàppale daal la wax jàppale na ku wax mooy mooy mooy moyen. moom jàppale. waaw mooy moyen. moyen du jàppale. xaalis gis nga xaalis. xaalis bëriwul xam nga lan mooy bëre. ngor ngor ngor boo ko amee nit mun na yor cent milliards am am am am benn affaire yow yoroo dërëm sa ngor nga may la nga am lu ëpp loolu yaa dégg fu may wax ak yow man yàlla boola na ma ak ñoo xamante ne. samay nit lañ ñu baax ay Baay Faal lañ man man Baay Faal laa déggoo ma eh, Baay Faal la ñuy doon ma Baay Faal la ñuy doon ma Baay Faal la ñuy doon ma ne Baay Faal la ñuy doon rijaalu Bàmba doon ëllëg ba doon rijaalu bamba la ni doon rijaal ba xay de baalam ma loola mama reema baalam ma loola mama reema baalam ma loola mama reema sama yaay boy sama yaay ma ne bay jaamu yàlla laa li da war na ma waaw loola Sayyidatuna Maryama aja Malick aja Malick ah, ah, waaw man woo Pikine waaw mobilisation bi lii rek comprendre point yow man aw ma lu lii comprendre point ak yow mais le 25 dinañ gis stade loo xamante ne lu kenn mosut a gis la. waaw mbooloo mu mbooloo moo xamante ne duñ ko mos a gis fenn. comprendre fu ma yow ndax parce que maa ngi sant sama waa koñ sant waa Pikine ay Mambay Gueye booy dañoo sonn si man lu ne lañ may wax ay doo mbër ay buu si taal a mën. te amaana lépp li loo ñoom amaana ñoom li ñuy wax du dëgg si ñoom dan may ñaax bëgg combat bi bu ma ko fonkoon 10 ma fonk ko 100 mais samay booy lañ maa ngi leen sant ay Abdou Gueye booy bi aw ma fayam. bu nu wóor moom wóor na alxuraan karim du ma def open press bi nii kii kon jëmm ji Abdou Gueye moo tax man ma def open press bi barki alxuraan karim waaw Ama Baldé soq aw ma sama rakk la soq aw ma fayam ku ma bëgg la Ziza aw ma fayam ku ma bëgg Joola Joola Joola aw ma fayam ala Joola waaw Joola Joola aw ma fayam Tay Singa Joola bu Tay Singa jàpp nañ ci combat bi bu baax a baax sonn ci combat bi aw ma seen fay seenu maane maa ngi koy sant jogomaay sama doomu ndey waaw jogomaay sama doomu ndey gis naa yëg bu nga ma yëg yow jogomaay kaay kaay kaay kaay non kii surprise la non action la la jogomaay jogomaay jogomaay kaay jogomaay kaay waay jogomaay jogomaay kaay non kii daf ma dama koy wax quoi xam nga nit. jogomaay taxaw barki alxuraane waaw jogomaay sama day sonn si man sama doomu ndey la bëggal ma boppam sama combat jaral ko lu ne combat bi xool da see jàpp te sama rakk la comprend amoo fayam yàlla moom fayam nag yàlla na ko yàlla pay barki Serigne Touba waaw mafia café gi maa ngi sant ñëpp Ada Café maa ngi leen di sant Ado maa ngi leen di sant Bakar maa ngi leen di sant Ziza maa Pa Souley yéen ñëpp maa ngi leen di sant Mambay waa Alaaji maa ngi leen di sant Zanu maa ngi leen di sant lakal euh, bi nu mu tuddati Baye lakal waaw ñoom ñëpp Assane Kebe mafia bi jëwrin Léopold waaw Alaaji Diagne dopp afiya man daal bàyyiwuma ñëpp Pikine ki yëpp mafia yëpp sama jigéen ñi yow ñëpp maa leen ni gis nga ndeysaan ay xadi bëri ñoom ñëpp a ngi nii jox ma tur yi waa Pikine waaw waaw mobilisation ah? Baara Afia maa ngi woo ci combat bi Baye Galas Mbacke maam Khadim soxna Kiné maam Diarra Afia maa ngi woo ñëpp waa Pikine Mamor Mba Mbacke képp kuy taalu sëñ Afia Tall maa ngi woo Mafia aada bi Tapé maa ngi leen di woo maa ngi sant Pape Sarr bu baax a baax ñu tëgg combat bi maa ngi leen di sant groupe bu ko tëgg ñoon Alain ñoom ñëpp ñoon Beuz ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm waaw na si ñëpp jàpp Amadou Diagne maa ngi koy sant comprend boy Isaaka Diop maa ngi woo sama combat boobu léegi dégg guma ko waa njar gi ñëpp maa ngi leen di sant waa sama booy njar gi njar gi waaw noonu la demee nag waaw noonu waaw Eumeu Sène ñoom ñëpp Boy Niang ñoom ñëpp maa ngi leen di woo Ama Baldé yàlla ko yàlla may ndam ñoom ñëpp maa ngi leen di woo waa Lakale ñoom ñëpp Pikine képp kuy bëru Pikine am combat maa ngi lay sant di la gërëm maa ngi lay ñaanal Pokola yàlla na ko yàlla may ndam Pokola yàlla na ko yàlla may ndam ñoom ñëpp yàlla maa ngi woo ñëpp jaajëf jaajëf Pape Sarr maa ngi koy sant di ko gërëm bu fekkee wax naa fi lu ñaaw maa ngi jégalu Ziza aw ma fayam day sonn si man mbër laa mais damay jugee entraînement day yëkkati junni jox ma wala mu yëkkati 2000 jox ma yombul. waaw kon dafa baax yàlla na ko yàlla fay xoyam soq tamit dafa maa bëggal boppam te yàlla tax soq maa ngi koy sant di ko gërëm sama koñ maa ngi jégalu ñëpp maa ngi baal ak ñëpp di jégal ñëpp képp ku ma amal problème maa ngi lay jégalu nga jégal ma man sa doom nga ñaanal ma le 25 juillet ma jàpp Bou Siteu dabal la ko affaire ci lu gaaw.